waa Sénégal asalaamaaleykum mbokku àdduna ñu am mbégte kontaante dalal ki nga xam ni moo di Sarr Xam Sa Mbir te ñu am mbégte bu baax a baax a baax gannaaw bi nga xamee ni gëj nañ ko dégg ci li nga xam ni moo di réseaux sociaux yi. ak hmm. wàllum euh, YouTube ak yëpp daal. Hmm. ñu seet la woon asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah waa sunu planète 24 ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ndokkeel si seet bi ngeen di seet si. ndax sunu vingt 24 nekk na site boo xam ne ñëpp xam nañ ko ci àdduna bi ñun nag yaakaar naa ne euh, ko ñu xam dëgg nga ngay suivre internet di nga gis ne yaakaar na mën na un an six mois yoo xam ne daanaka dañoo bàyyi woon seen euh, lépp luy internet am ci yu bëri yoo xam ne dañ ci jublu woon di leen gërëm bu baax. tay sar ñu seet na manam maanaam ak yëngu-yëngu jamono ñu nekk ci jamono joo xam ne lu bari xaw na fi problème mu problème pandémie bi ak jaar na fi problème mu troisième mandat ñu fi nan nga mën a jàngatee yëngu-yëngu ci jamono jamono ji. waaw dëkk bi moom bari na jafe-jafe ren daanaka mën naa année crise la ndax feebar bi nga xam ne mais yàlla mu ngi nekk balaa nekk ci àdduna bi sonal na nit ñi wante li tax mu gën a sonal nit ñi mooy njiit yu jubadi. yu ne ci àdduna bi di manipuler opinion yi di manipuler industrie commerciaux yi commercial yi di manipuler lépp nga xam ne xaalis ak matériel moo leen tax a jóg loolu bokk na ci lu sonal nit ñi ndax feebar boo xam ne nit ñu ko présenté ak ni nga xamante ne nii noonu la ñu ko indilee demeewut noonu moo tax nit ñëpp xam ne mbir mi ay kàcc daf ko lal ak ay programme faramasonerie yu mag ak ay bandi yu ne ci suuf te ñëpp xam nañ leen léegi loolu bokk na ci li tax boroom gis-gis yu yaatu yëpp ak boroom xam-xam yëpp dañoo téye seen bopp xool ñi leen topp ci seen ndigal ñu ànd ak ñoom loolu mi ngi fi ñaareel bi tamit mooy damay wax ni feebar bi jarul annulé gàmmu jaru ko loolu sama xalaat la man man maa ko wax jarul annulé gàmmu ku toll ni yonent bi sallallahu alayhi wa championnat européen yëpp ak Angleterre yëpp ak portugaise yëpp ubbi nañ leen wala du dëgg ubbi nañ baal yi léegi maa ngi liir internet ne Adama Barrow ubbi na baal yi ubbi na restaurant yi ubbi na dancing yi Sénégal waxi noppi waaw kon yonent bi sallallahu alayhi wa jaru ko yonent bi ëpp na loolu kooku moo tax ñun ñu am kooku mooy saaxibi maqaami lawlaak bu taxutoon ak moom kenn du am kooku moo ñu war a gënal suñ bopp gënal suñ bàyyi yi gënal suñ yaay gënal suñ lépp waxuma la feebar yi àdduna yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne mooy faj feebar yëpp ndax moo indi alxuraan yàlla moom ci ma la wàcc alxuraan te alxuraan mooy lépp kon nag àdduna bi jaxasoo na waaye nag ñaan yàlla ma nga fam nekkoon ba léegi yàlla nee na bu ngeen ma ñaanul ma mere leen uduuni astajib lakum tegul ci sax condition noo ma ñaanee la wax waxut da ngay jàpp julli waxut da ngay lii udoo nii rek la wax ak nu ko waaye mën a firee ñaan leen ma la wax kon nag na ñëpp téye seen kurus yi na ñëpp dem ci liñ xam ñaan yàlla parce que kàccoor yi ak band yi ma gis ci àdduna bi ku amul ñaan dinañ tàbbi ci sa loxo te dinañ laa lakk. sallallahu mm. mm. mm. eh, eh, waaw mooy li ma wax rek mooy yonent bi dafa ëpp loolu maanaam yonent bi sallallahu alayhi moo ëpp lii ñuy def nii dara jërta tax dara jërta fàtte yàlla dara dara dara ab jullit dafay gëm yàlla man damaa jàpp ne buñ màggalee juddu yonent bi sallallahu alayhi ñaan suñuy soxla yàlla mun na fi jëlee balaa yi yëpp moo tax jamono ji dafa toll foo xam ne dañu tollu ci ñaan yàlla ñaan yàlla lañ toll fi mu ne nii parce que ñii ma gis moyens yi ñu déployer ak lu ñu am ci ay moyens pour xeex njub ak xeex lislaam ak xeex sëriñ ak xeex lépp luy njub ci kaw suuf fokk ñu jëfandikoo tur yi gën a mag ci luñ xam ak sekkar yi ñu gën a xam ci la ca gën a foor fokk ñu di ko jëfandikoo te képp ku ko ci neenal doole tamit di nga fi nekk rek waaye do fi def dara. Hmm. ku xam sa xam sa ci sëriñ boo xam day day day day gisaane ku xam sa xam lu nekk nga man dama nek serigne bo xamne limay dugg xalu bari na yakarna bi mu mujjé sa mag na la dama wara dugg xalu xalwa nag du du kum neex rek nga dugg xalwa yaakaar naa ne parce que fukki fan ak juróom wala juróom-ñaari fan nga war a tëju ci néeg waxuma xalwa dóor yi nit ñi def nii nag te di nelaw di whatsapp naan maa ngi ci xalwa loolu affaire caaxaan la xalwa doo da ngay tëju ci néeg boo xam ne climatiseur sax du fa nekk ventilateur rek a fa mën a ne doo lekk lu am yàpp maanaam lu am roxo nga xoor ragal yàlla di wàcce alquran di ñaan ci tur yi nga xam ak yoon wi nga ko duggee yaa ngi dégg doo dugg ak téléphone doo dugg ak rajo doo dugg ak dara benn appareil magnétique doo dugg ak moom ci néeg bi loolu mooy xalwa nga ñaanal nit ñi ñaanal àdduna bi ñaanal ki nga duggal xalwa loolu dafay régler problème yu bëri. kantaa ñaan yàlla bii ñuy def nag ñu bëri xam nañ ñu dañuy seet dañuy gëstu dañuy fanaanoo dañuy bind ay càngat dañuy wirde dañuy téye ay dog dañuy téye ay nit ñoo xam ne dañ leen di surveiller leen bàyyi xel. loolu ñun mooy suñu métier ci loolu lañu nekk di jàng di jàngale waaw dañuy jàng dañuy jàngale waaw du ñu sëriñu yaama neex man duuma loolu. ndomb ndomb gi kaaraange la ak sampu nit dañ koy liggéey nga jël ko def ko ci mbuus suul ko ci ay armeel ñetti fan. li nga dégg nag sama mbokk yi naan ay ñetti fan loolu xaraam xaraam nañ ñu may jàmm nañ ñu may jàmm laa wax boo ko suulee ñetti fan nga dem sulli ko nga ëwlu ko nga takk ko maa la garanti ci polis maa la garanti ci kaso maa la garanti ci alal ci am am ci mën-mën ci lépp laa la man maa la garanti loolu gannaaw boo takkee loolu soo ne garanti nag nit ñi foog ne lu nekk nga wax wante nit li nga am nga wóolu ko da nga koy présenté xamal nit ñi ne leen lii lii lay def man loolu laa gëm wante gàllaaj goo xam ne da nga ciy dengi dengi wala di ko sikk sàkk man wax dëgg yàlla nekkuma ci loolu man gàllaaj gu ma am bu wérul ma teg ko nee man ci loolu damay wax nit ñi ne leen ñàkk fayda mooy ngay sangoo ak cangat fukki fan ak juróom gisoo dara doo baaxut cangat bu doxee ñetti fan booy sangu tey suba war ngaa commencé gis ay signe de de positivité waaye yow da ngay sangu doo gis dara doo ba takk ak ndomb ak jaaro nga takk ko fukki at ñaar fukki at gisoo dara doo ko tekki lu muy jariñ bërki dem benn dama am benn waaye mu ne ma sama jaaro bi moom bopp bi métti moo ko fi indi mu ne dañ ko defaroon benn téere bopp buy métti ma ne ko tekkil bu baaxoon sa bopp dootu métti loolu ñàkk bopp la donc nit ñi nañ dem kenn ku ne daal li ngay def na ko xam maîtriser ko loolu am na solo. am na solo am solo mm. waaye bu ñu génnee foofu tamit am xew-xew di am mooy ñu ngi nekk ci nekk. Mm-hmm. ay soxna. Mm-hmm. Euh, kii di sumbulu nag da nga xam ne yàggul ci néegu sëy ak ki nga xam ne moom moo di sëñ xaas. waaw euh, ñu gis ay borom xam-xam yu ci génn naan sëy bi du fan du barkeel. ndax waa xam nga sungulu moom man na xawoon naa koo mere nag mooy bu muy waxee naa naan ay sénégalais yi bay ay waa xàll beeg ay affaire yooyu ay kaw-kaw yeeg yooyu yooyu nañu ci may jàmm ndax ki muy sëyal ni xaw fan la juddoo waaye du dakaar gii wala fii la juddoo xam nga ne xaw ma juuf xaas la xaw xam nga ne juddoowut fii kon nag sungulu moom it lii nit ñi di ko waxal yëpp na moytu rek na moytu rek parce que xam-xam dafa yaatu te dëkkut fenn xam-xam ci jàng rek la ne ku jàng xam ku gëstu xam ku yàlla xamal tamit nga xam man nag li ma xam mooy man xam naa ne sëy bii nii sëy bu baax la man loolu moom xam naa ko xam naa ne tamit sëy la boo xam ne mën naa yàgg lenn daal laa xam ne gis naa ko ci moom mën na bari ay feebar ci côté sungulu surtout si côté biir buy métti bu koy daaneel toujours boo xam ne daf koy daaneel te loolu jëkkëram mënu ci tus man ma maa ko defee loolu maa ngi fii man ñëpp xam nañ ma du waxantu dara la ci mënul feebar boobu mi ngi ci moom te mën na ko tere am doom te mën na ko indi leneen jafe-jafe yoo xam ne bu ci kanamee dina ci xam dara. man duma ma woo kenn parce que loolu bokkut ci maandu man nekkuma fii pour loolu man dama am leneen ci lu ma nekk. yaa ma laaj rek moo tax mu wax sama ma li ma xam te noppi foofu laa mën a yem. waaw man moom maa ngi fii Sarr xam sa mbir di yëngatu ci ñaan yàlla maa ngi fii Géejawaay croisement Béthio en face hôpital Dalal Jàmm donc euh, ma nekk nit koo xam ne euh, ñu ci bëri maanaam. nit du wax bopam wante ñi nga xamne ne nga ngi jëflante ak ñoom ci aduna bi yépp ñom xam nañ man may kan ci ñak tiaxan ak ci respecter sama wax ak it manam préserver l'islam ak ñaan yalla bi tamit bañ yaq ko du lu ñu war bari na ay cambal-cambal wante képp ku ci ak sëriñ da nga xam ki xamna na dara wala xamu dara man loolu la japp man de suma doon doon ak sëriñ mu defal ma càngat gisuma dara mu defal ma jaar gisuma dara mu defal ma ndomba gisuma dara dama koy bàyyi man laawa dem ci beneen sëriñ man noonu laay def man di ñaan yàlla ñu gàmm ji ci jàmm dem ci jàmm dikk ci jàmm lépp luñ fa ñaan yonent bi sallallahu alayhi ci buntam yàlla nangul ñu ko defal ñu teraanga yokk suñu mbëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xiir ñu ci njub ak liggéeyal ko ci diineem ji noon yeeg kaccoor yeeg yàqkatu diini yàq katu àddina bi yëpp yàlla bogo bogo leen taal leen ñoom ñëpp def leen poussière sànni leen fa mu leen jëlee woon ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam